أنت المقدم والخليفة في الورى بعد الخديم يا دفن كداباي giñaani kuy woote xalifatu yaa ko gën de sa baay ba moo gën seeni sëriñ gën seeni baay giñaani kuy woote xalifatu yaa ko gën de baay ba moo gën seeni sëriñ gën seeni baay dendalale xulafaa yi xaw naa araam yaaram du gam-gam leeg sagan yamu leen i baay yamu leen i baay yamu leen i baay delele la xulafaa yi xaw naa araam du gam-gam leeg sagan yamu leen i baay yamu leen i baay leroog cosaan nga xewoon fa mbàkke foyoo labbayka camsu la wuy siwul camsu la wuy siwul mooy saay-saay nawarta sarxan ma xarban mustafa samsul waraaya faw xaweer ab leeraay xutboo ngi gaay wuy siwul dañ laa xamul géej gaa ngi am xaayaana ngi mooy wey ba xaay xutboo ngi gaay wuy siwul dañ laa xamul géej gaa ngi am xaayaana ngi mooy wey ba xaay bahrul wa sariati wa nada wa ju yafooru lil wara yaay jenn waay yaay mbambulaat bahru nada sangu leen te duy yaay ndox mu teey ku la tabitooy ku la manditaay yaay mbambulaan bahru nada sangu leen te duy